Ah, d'écouter que que que de contribuer mais bon am na am na yenn euh, aspect yoo xamante ne euh, je reste sur ma fin par exemple man liir naa depuis 2019 solution pour un Sénégal meilleur ak programme bi ngeen yoroon tuddee ko woon jot na li ñëpp bokk ñëpp jot ci bii nii aussi après réajustement xëy na am na loo xamante ne euh, wax nañ ko ne après présentation bi am na yeneen ñeneen ñu ñëw ci coalition bi yu apporter beneen plus-value qui a changé un peu Euh, le projet originel bon euh, j'ai pas eu le temps xool euh, la version réactualisée mais surtout li Mame Birame doon laal léegi muy rationalisation des dépenses de l'État c'est-à-dire dafa taxaw rek sur des positions et des orientations principielles mais dugguñu ci biir carrément te comme Mame Birame ni mu def léegi cité des cas yu clair par exemple état lu muy wax ci téléphone 17 milliards et 17 milliards yooyu noonu peut-être que Mame Khady ak Thioro ñoo woote di cas jëmale fu kenn xamul hmm. ça ne sert pratiquement rien à l'État amul lenn loo xamante ne ci ñu na ko léegi yooyu noonu euh, j'attends euh, du prochain gouvernement ñu évaluer ko par un ne fii lañ koy jëlee ci somme bii lañ koy teg parce que loolu tamit bokk na ci euh, li appauvrir Sénégal ak bon wax nañ waxu ay institutions yu ñuy dissoudre et tout mais ci ministère yi ba léegi yéen ñëpp kenn mënul wax Euh, ci architecture gouvernementale kenn du ci wax daal en tout cas yéen gi ngi éviter la question te tamit euh, li maam xar doon souligner cinq une assemblée de rupture euh, foofu tamit foog naa xaar nañ leen ci bu baax a baax a baax bon am na benn avancée parce que Diomaye n'est plus dans le parti hein donc l'assemblée n'est plus assemblée wu Pastef parce que moom dañ koy contrôler alors ci processus de contrôle boobu noonu man dama jàpp ne fii ñu jóge de 2021 jusqu'à nos jours ak li fi xew pour man euh, bokk na ci euh, projet yu war a dem surtout à l'Assemblée nationale de modifier la loi d'amnistie bi fi jaar xaw ma ndax bokk na ci euh, mbëbët yi ndax waxtaan ngeen ko ci instance yi mais jàpp naa ne li fi xew ci boobu ba léegi pour man waruñ koo waruñ koo jàll nii rek war koo fàtte quoi yéen parce que bu ma lay laaj ci wàllum euh, Diomaye Cheikh Tidiane du joomaay tey mais en tant que avenir Sénégal bi nu bëgg par rapport ak principe yi ngeen xamante ne parce que yéen ci société civile bi ngeen commencé euh, ma xam euh, bu baax trajectoire ak parcours bi nga am jàpp nga ne cette loi d'amnistie là dañ koy pérenniser carrément après li ci des yëpp ñu bàyyi ko mu ñu fàtte ko alors l'Assemblée am na action de contrôle du gouvernement évaluation des politiques publiques après voter des lois cette évaluation de politique publique nga xamante ne li muy évaluer mooy projet bi ngeen jaay sénégalais yi est-ce que day am ay évaluation périodique député yi à chaque fois dañ naan la ñun amuñu les moyens de le faire est-ce que yéen a ngi xalaat renforcer cette assemblée nationale là ba mu am doole mën a exercer dëgg dëgg dëgg liggéeyam parallèlement ak moom contrôle bi muy def mais les corps de contrôle yi nga xamante ne logés à la présidence. Mm-hmm. ana ana rapport OFNAC. ana rapport IGE. yooyu noonu yëpp 94 euh, milliards euh, yéen yor projet bi yéen na ko tegoon fu mu mujjee Prodac bi am na yu bëri yuñ ci wax euh, nag am na ay rapport yu mu defoon ku yooyu noonu yëpp est-ce que di ngeen ko réactualiser déloger IGE pour que li nga xamante ne da koy enquêter ci alalu Sénégal loolu ñëpp bokk ñëpp mën ci jotaat ci information d'accord léegi avant Cheikh Tidiane di tontu dañuy jël euh, question bu Mam euh, Khady ak euh, bu isa mu nekk dernier dernière intervention bi Mam ah. Khady rapidement ah, dina ko mën a noter d'accord benn nga wax benn ah, waaw <laughs> bu bu bu complet benn waaw benn packaging lay doon déedéet amul de benn <laughs> d'accord bi ñu commencé di wax boobu ba léegi li ñu wax mooy li ñu war a def muy loo xam ne nii mën nañ ne lu lu lu palpable la yenn yi mais dafa am loo xam ne nii régime bi fi jóge ñoom loolu lañ leen doon reproché ñoom sax dañ koy bañ muy li ñuy wax le bilan immatériel yéen yéen est-ce que euh, bu ngeen toogee yéen di ngeen bàyyi xel ci loolu mooy wàllug démocratie liberté d'expression parce que it booy seet comme ni ma ko waxee sànq njiitu réew mi da ngay gis am na ñoo xam ne dañ naan si def na fi def na fi mais bilan immatériel am moom moo moo baaxul donc mu mel ni ne loola kon dafa am importance ba tax moo yàq selon ñenn ñi lim defaroon yëpp donc c'est quelque chose d'important kon yéen nag bu ngeen toogee ndax euh, mën nañ xaar tey jii ngeen toog wal fu wax lu leen neexul sax ngeen tëj ko Issa waaw <laughs> la fameuse question va revenir parce que sànq déjà daf ko junju euh, brossé ko gën a ko dinañ ci ñëw moo tax rek mu bëggoon ko ko rappeler pour que ñu am ci sa version des faits parce que gis nañ ñu bari wax ci euh, muy euh, monnaie am nay préalable yoo xam ne quand même nit ñi boo ci wax day mel ni comme si dañuy jàpp que liiroo programme bi alors liir nañ ko li nga xam ne moom la ci waa Diomaye président wax ci ay préalable yoo xam ne dañ ko teg lan mooy sa gis-gis ci monnaie yow mi nga xam ne xam nga bu baax ZLECAf xam bu baax CEDEAO ak Union UEMOA. Euh, Ayoba tu as une question pour qu'on termine avec. non j'attends la conclusion. ah la conclusion d'accord. allez-y Cheikh Tidiane. baax na question yi bari na waaye j'espère j'espère que du ma fàtte. non non dama ne ci kii lay njëkk a toon ah, ci ci waaw moom moom en fait réponse bi dañuy dellu rek je sais que xam na ko dañuy dellu rek ci ci commission de réforme des institutions. parce que xam naa ni liir nga ko te ñàkkul ni liir nga aussi projet bi te booy xool projet bi li ci jiitu daanaka te am ci solo lool c'est question des institutions lu ne wax nañ ko ci pour justement rendre impossible lépp lu doon nekk ay ay niche ou ay ay possibilité de de de corruption de fraude ak ak defin bu ñaaw inspection général d'État c'est très clair tey jii c'est sous la tutelle de la présidence de la République danañ ko ci génne c'est très clairement écrit nag même ki koy jiite dafay nekk appel à candidature du ko ñuy jël rek nommé ko nga def loola neex wala yaa neex président wala yooyu te bu ñu ko defee itam du ko mu neex rek ñëw jëlee la fa à tout moment comme li ñu ko gisee woon fii récemment bu ñuy wax euh, indépendance de la justice wax naa fi sànq cour cour constitutionnelle ak conseil supérieur de la magistrature ni ñu koy réformer mais ki dem ba euh, dama koy coupler ak li li li soxna Xadi euh, wax léegi euh, ci bilan immatériel bu ñu nee danañ dem ba am juge des libertés boo xam ni tey jii amu fi boo xam ni et de la détention procureur puisque mu ngi ci tutelu ministre de la justice mu koy activer su l'ordre d'un président de la république bu bëgg attaquer à son opposition procureur bi dootul nekk foofu on le on l'enlève de cette tutelle parce que nekkatul ci cour constitutionnelle bi foofu mooy ordonnancement judiciaire bi yëpp foofu lay foofu lay basé wu du ku ñu jàpp rek tëj la defal la détention parce que juge des libertés bi dafay apprécier avant quoi que ce soit xam nga kon fexe nañu ba liberté nit ñi dinañ ko dinañ ko sécuriser mooy sécurité judiciaire boobu moo waxoon amatul danañu delloo nit ñi seen ak ak seen yeleef gouvernement bi à commencer par le président ba ci suuf dina bokk ci li ñuy natte seen résultat mooy compassion bi ñu am ci askan wi compassion xam nga du du lu matériel mais danañ ko natt danañ xool ay jumtuwaay pour xool est-ce que ñii kii di ministre de la santé mu ngi def loo xam ni ci ay doxalinam ci urgence yi ci nit ñi di tëddee la charte du malade la nangam lu ñu mën a natt éducation nationale est-ce que xale yi ni ñu leen di toppatoowee est-ce que les enfants qui sont dans la rue est que nangam loolu ça va être parce que dañu ni su fekkente ni tu ne règles pas longue détention yi s'il vous mu ngi ci mm-hmm. boo ubbi woon kii bi da ko ci gis. c'est écrit mm-hmm. noir sur blanc loo xam ni on fait en sorte que ça ne soit plus possible gis nga gis nga li ñu li ñu ñaan yàlla mooy xamuñu ñaata temps la ñuy def au pouvoir yàlla rek moom moo ko xam mais li ñuy ñaan yàlla mooy bu ñu fi jaaroon ak nu mu toll bu ñu demee Sénégal dootul dootul mën a lenn li mënatul am mm-hmm. on fait en sorte. que ce qu'on a vécu mu indi ñu ba fii que ça ne soit plus possible que bu bu keneen ñëwoon yeneen acteur politique ñëw bëgg koo def ils ne pourront plus mu ngi mel Amérique mënatoo def yenn yi bi Trump ñëwee def yenn yi dafay signé décret benn juge contesté ko mu daanu fii gis nañu lu mel noonu ay juge contré parce que am na lu mu ci doon mais dañu bëgg l'équilibre et la séparation des pouvoirs nekk une réalité ba boo ñëwee ci li ngeen wax ci assemblée nationale on a plus de députés au service d'un parti politique on a plus des député au service d'un président de la République on a des députés du peuple loolu nag réforme la boo xam ni il faut ñu yegg ci moo tax loo ubbi ci biir progrès bi dañu lay wax bii on la fait immédiatement am na yoo xam ne nii incha allah da ngay gis dès mardi jëm mercredi semaine bi bu président mënee da am taxawaay yu def ay décret rek nga gis ay décret yu commencé daanu di régler yooyu benn benn da gis yoo xam ne dina naan yii c'est dans les mois que ça va se faire tout ce qui ak réforme yi parce que c'est urgence la dafa metti ci nit ñi. Mm-hmm. du passé première année bi. entre six mois ak un an lu ci ëpp on fera en sorte que loolu nekk fa nga xam ne dootuñu wax ci leen mais noonu ay toroxal nañ ma jàpp nañ ma umilier ma torturer ma dara fekku leen ci. rey nañu nit ci prison wala ci ci commissariat dara fekku la ci loolu il faut mu jeex. loolu ça ne mm-hmm. peut pas continuer. loolu c'est quelque chose boo xam ne c'est sur prioritaire. yeneen yi nga xam ne nag ça prend un peu temps yooyu itam bu ci nekk va communiquer là-dessus moo tax ma dellu siwaat si loo xam ni. lu important la mooy les concertations sectorielles gouvernement yi du ñëw rek commencé tàllal ni lu ma neex laay def lii laa waxoon moom laa bindoon mooy sama programme déedéet dafa naan yéen waa bi tey ñëw leen waa média ak yooyu lu ngeen xalaat seen seen seen mbir mi lu ci ne yéen ñu ko gën a xam bu ñu indee waa assise de l'éducation defoon nañ fi ay assise hmm. ñu ne leen defaraatal leen ñu lu gën a méngoog jamono ñu wax lu xew. Hmm. ñu def ko ci agriculture def ko ci càmm def ko ci napp ainsi de suite daf ñuy jox une feuille de route. ak benn plan d'action boo xam ne dañ naan lii ak lii ak lii la ñuy def action yi lii la bu ñu defee action yi ba noppi lii mooy des indicateurs de résultat ministre bu nekk nga mën a pointer ni ne woon nañ mën naa emblaver cent mille hectares de nangam ci ñaari at est-ce que def naa ko nit ñi mën koo apprécier te da ngay jël engagement loolu suivi gouvernemental boobu mënul ñàkk donc loolu itam dinañ ko jëm maintenant la monnaie ça fait l'objet d'un gros débat da boole ñaari yëf lii nekk fii ak la jóge depuis deux mille dix neuf xam nga monnaie bi mm. la question le problème avec la monnaie le problème c'est quoi mm. c'est tu prends le CFA c'est pas une monnaie souveraine c'est une monnaie captive capturée par son arrimage avec l'éco avec euh, avec euh, l'euro l'euro mu jàpp ko monnaie boobu ñu ne la pour pour pays CEDEAO yi UMOA union monétaire ouest africaine que la France mu ngi ci suñu biir système monétaire ak suñu gouvernance de notre monnaie donc le fait que monnaie bi arrimé wu à l'euro amuñu souveraineté monétaire le fait que France nekk ci biir amuñu souveraineté monétaire moo xam ne muy tudd bu ci France génnoon nekkatul ak euro mu nekk une monnaie libre reliée à un panier de devises déjà ça devient une totalement différente dafay mën a dañ koy mën a utiliser suñu instrument de politique monétaire maintenant mu fekk nag fii ci CEDEAO ñu amoon un processus que nous avons lancé li ñu wax mooy li ñu gënal mooy avoir une monnaie avec nos voisins de la CEDEAO. monnaie commune monnaie commune. déjà depuis 2019 dans le projet Sonko président dañu ne woon ECO mm-hmm. boobu nga xam ne ECO bi man dama koy suivre depuis 2006. ba ñu defee turu ECO 2006 ba tey. Mm-hmm. maa ngi suivre ay péripéties léeg-léeg mu avancé léeg-léeg mu reculé léeg mu yeex yéex na lool wax dëgg yàlla. parce que li ci ëmb pour mu mën a am dafa jafe mais def na ay jéego CEDEAO créé na lu ñuy wax AMAO mooy agence monétaire de l' de l'Ouest mooy gérer la gouvernance de la mone l' aspect politique am na lu tudd IMAO institut monétaire de l' Afrique de l'Ouest mooy gérer l' technique de cette monnaie éco te tur bi am na ba noppi 2021 bi CEDEAO dajee nii danañu lancer éco bi ba ni ñëpp mënuñoo ànd pare pour lancer ko parce que critère de convergence yi dafa jafe arrangé wul France ak Alassane Ouattara mu torpiller ko yéen yëpp dina ko fekkee benn la mu torpiller ko de manière totalement illégale et et et parce que dafa xëy dem Abuja nekk ci conférence des chefs d'État de la CEDEAO ñu wax waxi monnaie éco ba ne léegi pour ñu avancer nañu jël pays yi nga xam ni bu dee ñett wala ñeent ñoom pare nañu ñoom ñu tàmbali éco ñeneen ñi dab leen mu xam ni mbir mi dina sotti mu jël avion bàyyi leen fa ñibbi ñibbi Abidjan Macron fekk ko fa ñu ni nag dañuy créer mu bu bees bu tudd ECO fekk turu CEDEAO la lañu sàcc te waxuñu ni dañ koy dindi ci euro waxuñu ni banque centrale France dootu ci nekk mu mel ni kon ECO boobu ci xelu nit ñi dafay remplacer CFA mais mel ni CFA ba tax ñu bari bàyyi ECO bi fekk ECO n'avait rien à voir avec ça c'était leur logique politique pour torpiller la monnaie donc ñun ñu ni Sénégal dafay am taxawaay bu bees ci CEDEAO CEDEAO kuréel kese la bu amee ay acteurs yu bees yu baax yu ko gëm yu am démocratie bëgg mu avancer bu ñu fa ëppee rek dina masse critique mu avancer donc dinañ def suñu kéemtalaay kattan pour CEDEAO avancer ci monnaie commune régionale bi bu fekkee mënta nekk bu fekkee mënta nekk jéem nañu ay la yéwén def nañu lu ñu mën nekkul. Sénégal du fi des ci CFA boo xam ni amalu ko njëriñ. dafay est-ce que pour yombal loolu. dafay wut beneen pexe relation yu baax yi nga xamante ni Pastef wala Ousmane ko am na ko ak Assimi Goïta ak capitaine Traoré mën koo am ak euh, général Tiani est-ce que du ngeen dox diggante boobu pour indiwaat leen euh, sur la table de la CEDEAO pour gën a am force pour bousculer ñi nga xamante ni ñoo fi nekkoon te ñu considéré leen comme. ñoom ñoo defar syndicat des syndicats des des chefs d'État au lieu euh, que que que doon des peuples. boo déggee discours bi mu def keroog ci ci euh, conférence bi wax na ci ba insister ci bu baax ci fexe ba delloosiwaat CEDEAO des peuples CEDEAO boobu des peuples gëm nañu ni bu melee ni mu war a mel ñooñu di génn di dem te bañuñu CEDEAO doxalin bi la ñu bañ mm-hmm. dañ ci gisatul seen bopp parce que CEDEAO dafa am ñu ko jël au piège mm-hmm. seen un syndicat de chefs d'État oui moom Alassane Ouattara la ak Macky Sall ay Foro et Adema ak yooyu. Mm. li ma gënoon choqué man sama dund ci at yi mujj muy gàcc bu rëy ci man man CEDEAO ñëpp xam naa leen fa. commissaire yeeg directeur yeeg yëpp mu demee Abuja <coughs> fu ne dama bu ñu ñëwee fii Dakar dañu ñëw sama kër léeg-léeg di fi di fi reere si bi ma biñ ma woowee chef de yi di réunir ñu ne dañuy réformer le protocole sur la gouvernance et la démocratie <coughs> pour ñu changer benn article sur la sur la durée des mandats. Mm-hmm. ne dañ koy changer. pour dugal ci benn disposition bu ndaw rek ni. réewu CEDEAO yi kenn dootu fi def deux mandats. oui. de deux ñu woo ma ni ma Cheikh Tidiane lu xew ma ni leen lu xew ñu ne ma sa réew maa ngi nii sa ministre des affaires étrangères ngi fii salle bi. Mm. ñu ne dañuy réformer pour pour <laughs> keroog gàcce bu doon mel noonu gëj naa ko am. muy layam layam ma ne sama Sénégal ñu ne ma mu ngi fii toog. nee na du ko du nangu mukk ñu réformer protocole bi boobu ñu ngi ci troisième mandat boobu ñu ngi ci tànk troisième mandat <laughs> mm-hmm. man leen sama Sénégal ngeen di wax ñu ñoom <laughs> jommi parce que imaginer wu ñu woon ni Sénégal dina def alliance ak Côte d'Ivoire ak Togo mm-hmm. et en passant en passant Faure ay Faure Faure Faure Faure gis nga li mu def a supprimé <laughs> l'élection présidentielle il a supprimé l'élection réew yooyu lañu ñu demoon way ànd ak ñoom donc CEDEAO bonul yooyo bon njiitu réew ya koy def loolu bu président Bassirou Diomaye Faye ñooy dugg ci waxtaan ak naataangoom yooyu ngeen di wax. Mm-hmm. ñu nangu dellu si. am na réew yoo xam ni progressiste lañu am na ñu ngi ci biir ay Cap-Vert lañu. Nigéria jouéwul ba léegi rôle lu leader mais bu amee quatre ou cinq yu taxaw Sénégal ñëw taxaw ci wetam. Mm-hmm. dina assumer loolu. Mm-hmm. bu ñu demee ba nekk majorité. cette petite minorité dootul dootul xëcc te kon monnaie bi mën naa gaaw leneen mën naa gaaw mm-hmm. ñu nag yaakaar naa le président Bassirou Diomaye Faye il va vraiment peser de tout son poids mm-hmm. pour pour réformer CEDEAO dans ses façons de faire ses procédures mais gëm naa ni dina tàllal loxo euh, Mali Burkina ak Niger pour ni leen ne quittez pas la maison parce que c'est là que se trouve notre avenir newuñu li ngeen def baaxul parce que vous avez le droit vous êtes en tant que État mm-hmm. mais bu dellu si et ensemble ñu réformer notre institution communautaire parce que les pères fondateurs avaient une grande ambition. ñoom ñëpp ay putschistes lañu. malgré loolu ils ont eu la vision de dire nañu def une communauté régionale. Voilà. donc ñi ñëw ba nekk ay démocrates. ci en tout cas Sénégal waru ci des ginnaaw. Mm-hmm. donc war na fexe ba même ñi nga xam ne coup d'état bu leen indi au pouvoir. ñu xam ne lu mu yàgg yàgg ñooñu ils vont dinañu dem ci régime plus démocratique. et c'est le moment de Sénégal jëlaat rôle leader ñun dañu dañu nekkoon ginnaaw. man dama bëgg la président Bassirou bu toogee mu nekk le leader de la CEDEAO sur la façon de faire joxe le tempo sur la démocratie la bonne gouvernance les libertés Sénégal jëlaat place am Sénégal dafa bàyyi woon àndam ànd bi toj <laughs> dégg nga amatuñ fu ñu toog loi d'amnistie boobu kii rek il faut que ñu tegaat ànd bi Umaru Sissoko Embalo moom loi d'amnistie bu Pape Moussa bi mooy euh, la dernière question waa bouclé ma biram di sërxal laa bëgg a dégg am na lu muy sërxal day tooñ non day tooñ Embalo lay non Embalo laay wax ah, moom moo nekk président en exercice CEDEAO te gis nañ ne <laughs> président Macky Sall annulé élection yi moom moo fi nekk le président bu ko félicité ah, nga kooku moom kooku moom ah, kooku moom sax bi ñu ko gagné kooku moom mën nañ ko bañ a toppee dara wax dëgg am na ñoo xam ni mën nañ leen bañ a toppee dara dañuy fexe rek wax dëgg yàlla ba ba ba mettre leen sur la touche parce que CEDEAO dafa am nu mu demoon ba mel ko ba ñenn ñi di mën a nekk sax ci euh, waa am yenn responsabilité yooyu nag laa bëgg ñu delloowaat ko d'accord une véritable CEDEAO léegi nga ñëw ci loi d'amnistie bi Pape Moussa on va terminer avec ça waaw léegi loolu ñun ñun suñu position déjà wax nañ ko avant ñu koy voter dañu def suñu communiqué de avenir Sénégal bi ñu bëgg wax ni nous nous nous nous nous nu comment dire écartons nu ne voulons pas que ñu voté loi boobu d'accord uñu si en aucune manière d'accord sur la loi d'amnistie et ñu demander à nos député parce que bokk nañ ci Yewwi de ne pas le voter gis ngeen ni ñu bari la coalition Diomaye Pastef <clears throat> ñoom ñëpp c'est la posture qu'ils ont adoptée yaakaar naa ni fii ñu jaar ci réew mi on a dit on veut la justice on ne veut pas l'impunité on veut la justice on veut la transparence et la justice on ne lii am suba man xaw ko mais li ma gëm mooy réforme yii ñuy def ci justice bu ñu ko defee ba justice sotti justice moom boppam am indépendance am bu boobaa ñi ko war a def liggéey bi ñu war a def il feront ce qu'il y moo tax bu ñu may wax est-ce que da ngeen di topp ñii wala chasse aux sorcières ma ne leen est-ce que sorcier am ak fan la am ak lan mooy loolu li ma gëm mooy bu gouvernement bi ñëwee dafay nekk si li tax ñu fal ko mooy liggéey pour sénégalais yi génn ci jafe-jafe yi ñu nekk. bu defee les réformes qu'il faut ba président di def liggéeyu président assemblée di def liggéeyu assemblée mais justice bu demee am indépendance am ñu def ay enquêtes ci ay nit walla ay ministères walla ay dossiers wax nañ fi fonds force Covid 19 xaw ma lan lépp enquête nañu ko téye nañ ko xam nañu ko def ak ku deful mais kooku bu ñu fi amee une justice mu ne dossier bi nañ ko jébbal li ñu ko war a jébbal juge ko war a topp nañ ko topp coow coow dafay jeex. Mhm. justice fera son travail. et c'est exactement comme ça que ça va passer nous on n'a pour cette loi bu ñu demee ba yegg Sénégal ci réforme yi ñu war a def yépp il appartiendra au peuple sénégalais et à la société sénégalaise ñoom ñooy wax qu'est-ce qu'il faudra faire de tout ça parce que li ñuy wax lu loxo def loxo mën na ko dindi lu assemblée def parce que moo majoritaire. beneen assemblée bu majoritaire mën na koo dindi. loolu nag c'est le peuple sénégalais qui décidera le moment venu ban message ou ban TDR ban demande impérieuse lay jox ces élites politiques bu ñu nee lii dañ ko war a dindi. les institutions habilitées pour le faire. feront ça docteur tontu bi tontu bi leerul koy abrogé wala duñ ko abrogé parce que askan bi mënuñ leen laaj loolu. ce xam nga dafa am loo xam ni man bu ma toogee man du may abrogé sa xalaat en tant que leader de avenir Sénégal bi ñu bëgg. man nee na wax naa la li ma wax pare. cette loi on n'est pas d'accord président bu fi ñëwee. donc kon dañ ko war a jëlee mais moom mooy décider man du ma. d'accord man kay dama bëggoon sax bu ñëwee ci wàllu njàng mi bi njàng mi wala itam liñ fi fekk mu demee woon noonu lay demee. ah déedéet loolu loolu loolu concept refondation bi ñu wax daf ko yóbbaale lu bari dañ koy tëggaat bu fekkee da nga ne dama bëgg tëgg un sénégalais de type nouveau sénégalais bu bees fii ak cinq ans dix ans une génération je veux avoir un autre sénégalais bu mentalité am bu gën a gëm valeur am valeur sociale sociologique ay mbaaxam mais da ko koy jàngal ñun jàngalatuñ suñuy maam. jàngalatuñu suñuy mbaax jàngaluñu jàngalatuñu ay yenn valeurs man li ma xam ci la littérature française wala nangam xamuma ko ci mbindu maam Cheikh Ahmadou Bamba te pourtant poète li mu def ci poésie am na yoo xam ko tekki woon di ci jàngale même tuuti daf ñuy dafay baax ci ñun jàng ci suñu làkk fatalement il faut que ñu dem ci boobu réforme forcément sa prendra comme de temps il faut que gouvernement bi démarrer mais foofu la ñu jëm parce que amul benn réew ci àddina bi bu développé wu boo xam ne jàngul ak liggéey ci làkkam amul ma benn exemple boo xam ne yegg na fenn fi bu koy jàng ci làkku jaamur te ñun tey wane nañu suñuy làkk di nga si jàng mathématique science physique robotique ak lu nekk mhm. google sax léegi da koy laaj mu bind la ci wolof wala ci pulaar mhm. loolu choix de société la dinañu réformer parce que construction citoyenne dafay commencer ci école primaire yi changer les programmes scolaires instruction civique ak morale mhm. ñu koy jàngal suñu doom yi ñu màgg ci xam lan mooy les institutions lan mooy le respect lan mooy euh, le drapeau et la république loolu mooy tax ñu bëgg seen réew loolu mooy tax ñu fonk ko parce que dañ leen ci ta euh, euh, nampatal. et réduire le cursus. assise yi ma wax la les les concertations sectorielles bu waa système éducatif yëpp toogee. Mm. jël seen ay termes de référence liggéey si temps bi ñu leen jox. Mm. ñoom ñooy ñëwaat nañu programme scolaire yi nañ ko soppi nii lañ ko war a defee. temps bi ñuy jàng. dafa ba terminal ëpp na. man li ma jàng ci mathématique ma xam nga bac ñaata laa am mathématique deux sur vingt bac baccalauréat ah yow 1 2 sur 20 ñu multiplier ko par coefficient 3 muy 6 6 yooyu xoolal 6 yooyu bu ma ko amul woon xoolal gis nga 6 yooyu bu ma ko amul woon bu ma yooyu du ma wàññi dara damay am bac premier tour mais mathématique bi sonnal na ma ba nga xam ne talatuma woon dara te mënu ko woon def donc il faut que ñu teel a mën a orienter nit ñi ci fan nga mën a jëm man man bi ma nekkee ah euh, second troisième xaw ma la àddina yëpp xamoon nii àdduna du yàgg ba ma tekki ci mathématique mënu ma ko mais pourtant rey nañ ma ci sonnal ma ci mm-hmm. léegi war nañ am système boo xam ne dafa naan kii lii la man nañ ko ci orienté bu mm-hmm. buñ ma sonnal ci leneen mm-hmm. ki nga xam ni science la man ñu teel ko ci xiirtal ki ñëw troisième ñu xam ni kii àdduna du yàgg ba mu dem defi étude universitaire mais joxe na ay talent ci ci menuisier wala plombier ñu yóbbu ko formation professionnelle mu teel cee jàngi nekk am am brevet Euh, d'ouvriers qualifiés. Mm. wala baccalauréat qualifié wala yooyu on aura de très bons. surtout avec l'économie du pétrole et du gaz. oui il y a des de métiers. bien sûr yoo xam ne war nañ koo am. mais ñooñu du doon rek ni ñuy ni ñuy euh, jàngale sur le tas il faut travailler avec les artisans avec le le secteur les ouvriers ak ñi nga xam ne ñooy maçon yeeg mécaniciens yooyu ñu indiwaat xale yi ñu formé waat leen gis nga damay wax souvent ne bu ñu deful attention fii rek ay at suñu suñu mécaniciens yi ñu am xarañte lañu. mais bu ñu leen formé wul jox leen équipement yi dootuñu mënati réparer benn oto. Mm-hmm. parce que bu oto yi nekkee ñëwee nekk électrique nga xam ne ordinateur ngay branché mu jox la kii bi nga. Mm-hmm. boo ko jàngul noo koy mënee. Mm-hmm. mais ñooñu il faut ñu tàggat leen ci ci enseignement professionnel ak formation continue donc programme scolaire oui boo bëggee tabaxaat aw askan da ngay changer façon yi jàngal linam valeur yi fi maam yi bàyyi amul lu ko gën ci àdduna man ay littérature ak ay bordel xam nga koy waxee. faatu ay ndoom oui oui yooyu yëpp daf ñu sonnal dégg nga ma ay ay penseur tubaab yeeg yooyu yëpp daf lay sonnal loolu daf ko na dëgg loolu daf lay xoolal histoire géo li ñu jàngal da ngay jàng jàng leçon yu dul jeex. ah ay jàng littérature fële révolution bolchevique ah <laughs> le truc Japon du Meiji <laughs> Japon di nga fa dem bañ la ne ba ñu ne ne euh, la décolonisation au Sénégal. nañ ko toppatoo pourquoi ñun ñu jàng Japon du Meiji mu lay bëgg a rey loolu dañu koy changé ñu jàngal ñu lu lu loo xam ne lii Lat Dior bi muy dem déxale bind nañ ko. mais day on le jàng en passant. Mm. alors que foofu dañ fa waroon taxaw. Mm-hmm. Mm-hmm. jërëjëf Ndeye ak Saalum dañu waroon taxaw ñu ni. Ah. li tubaab bi ni Lat Joor dafa daw. waxul dëgg. Mm-hmm. Lat Joor tubaab bi def rapport bi dëgg. nee na il a montré tellement de bravoure. Mm. que poudre bi feu bi xeex bi dafa dafa taroon rapproché ba nga xam ni poudre yi ñoom fetal dafa doon dafa doon lakk seen yére yi. xanaa te loolu te loolu bokkul ci ñun dañu jàngal ni dañu di jàngal ni Lat da doon wër-wëral teen bi ak tubaab bi ñu naan ndax Lat Joor a doon daw xam nga loolu nga jàngal ko saw askan nga jàngal ko saw askan mm. ci ci héroom bu eh, yaa ngi koy xeet te les les gis nga Pape sax mm. dem leen xooli les véritables rapports mm-hmm. Lat Dior a fait preuve d'une bravoure. boo xam ne képp kuy Sénégal war nañ la jàngal ngor ak fit ak jom. ak kaddu il savait presque que que que mën naa mën naa mën naa ñàkk bakkanam. Mm-hmm. kaddu mm-hmm. ñëpp xam nañu ne bi mu demee seeti maam Serigne Touba wax ko. Mm-hmm. mu wax ko li mu ko wax sëriñ bi wax ko ko Lat Dior Lat Dior ni day dem quand même. ña fa nekk mag ñi nee nañu sëriñ bi sax moo ko wax mu ne leen xool bi demul toog na. waaye kàddoom ak jomam raw na ko mhm. raw na ko mhm. mais loolu ñun duñ ko jàngal suñuy doom mhm. Lat Joor bi mu ñëwaatee ci dëkk bi jël les meilleurs de ses hommes nii leen nañu dem jël see doom ses ses taawam yi jiital leen ñu ngi wax ni ka nga xam ni yaayam siin la jóge woon moom la ni libéré nañ la yow waroo deewee fii Kajoor siin nga war a dem mais histoire laa leen di wax ne mu ngi ci livre de Lat Joor dem jàkkaarlook tubaab bi di xeex ba daanu mais kooku ku ku bëgg tabax am réew doo wax sa doom yi danga danga war a am ngor danga war a am jom doo dellu ginnaaw sa kàddu danga koy sàmm. Japon Japon loolu la ñuy jàngal seen i doom seen ngor ak seen jom. loolu la ñuy jàngal seen i doom mais ñun. talaatay talaatay ndeer talaatay ndeer le 7 mars talaatay ndeer doy na gis nga loolu ñun dañu bëgg mu dellu si mhm. ba ci suñu cérémonie initiatique yi bu nit ñi duggee néegu góor suñu ay institution yooyu nga xam ne c'est institution sociale yi euh, sociologique ñu euh, euh, revaloriser ko revaloriser ko man am man sociologue bi damay kontaan ci affaire u kasak xam nga dégg nga man man bi tey man man man man man man sociologue bi buñ may wax ay affaire kasak dégg nga kasak kasak kasak ak ak ni ñu doon jàngal nit mm. ci kasak ak message yi ñu ci doon jaar man am na yoo xam ne ba tey des na ci sama xel ngor dafa jeex. ah góor waaw ah, dañ jàng am na nag ah. Eh, awa eh la. donc eh, la waxin la déedéet waxin la leen eh, góor nga naan maa bokk ak moom lël. déglu leen li mu wax. loolu amatul. xam nga lu tax góor bëreetul. parce que góor dafa englobé lu bëri. góor du ngóor a kese. waaw góor waxtaan bàyyi xool mais déedéet déedéet bi dugg góor amatul nga ko gis ci góor dafa jege ngóor waaw góor ak ngóor ngóora du benn dégg mag ñi dañ doon jàngale tamit nawle ña nga bokkaloon ngeen dem néegu góor ngeen souffre souffrir ñu leen doon teg ay mettit ngeen koy résister ndoo ñuy xool ku ci gën a brave bu ngeen génnee ba nekk ci penc mi nekk ay kilifa da ngeen di nekk ay nawle nawle boobu xam nga léegi li ñu lu ñu lay wax nawle hmm. yow yaa ngi nii génn nga nekk nga administration euh, kii yéen a jàngandoo école yéen yem salaire moom mu ngi nii am na ñeenti kër am na ñaari jabar am na ay 4-4 yow yaa ngi ni amoo dara. peut-être moom dafa sàcc. da ngaa échec yow sàccoo yow da ngaa échec. Mm-hmm. dañ naan sa nawle la la pourtant. Mm-hmm. fekk loolu du nawle. ñun nawle mooy ki ngay méngale sa sa comportement yu baax ak sa étique nga ne je m'interdis de faire ay actes yu gën a yu ñaaw. par rapport ak moom jomb naa jomb naa mu ñu yëg dégg ko ci kaw man ma def safaan. Mm-hmm. mais nawle boobu boo ko jàngalee ci école yi xale yi gëmaat ko. Mm-hmm. nag boo leen ci tàggatee ñu màggee ko mooy li normal ci ñoom. Mm-hmm. ñun fi mu ne nii c'est anormal parce que jàngaluñ ci suñu mag ñi. loolu nag laa bëgg ñu dellu si wa siwaat te incha allah lii dañu bëgg dem ci loolu. incha allah bi tey par la culture. Mm-hmm. par l'éducation. par par apport média yi sax eh, aussi ak média yi. Mm-hmm. non parce que. programme yi dama ci recevoir benn proposition maa ngi koy saluer docteur Isabelle Morera elle me parlait de ça. de média yi aussi dañ ci war a contribuer. ci nouveau type de socialisation ci restaurer valeur ngor jom. ak yëpp média yi loolu ñu koy tuddee le réel moment yooyu nag la la kii la la la la di wax ne la mooy am ci góor. Ah, valeur boobu noonu muy ngor. kersa. kon léegi yaa ngi toog tax ma ne góor am a ah, jeex na la ñu tuddee réarmement et ah. ressourcement moral. waaw dañu war a réarmer notre jeunesse. Mhm. kenn du ko këf. Mhm. du fan du fan tubaab. Mhm. du du am complexe. parce que moo xam bitim réew loolu de moo la fii. képp ku mu dajeel. day danaan man gëm naa sama bopp de amul doomu aadama bu ma gën. su fekkente ni maa ngi maa ngi sukkandiku ci samay valeur ak sama éthique. d'accord dégg nga loolu nag euh, lu ñu war a tabax la ci société maam Khady jox ñu rek euh, euh, li nga xam ne moom la Walf Quotidien fas yéene génnee suba lan moo fës ci xëtamu njëkk. du 109 au pouvoir élection du président Bassirou Diomaye fay loolee la.